alladina yuminuuna bilxaybi wa yuqimuuna alsalata wa mimma razaqnahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bilaaxirati hum yuqinuun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum almuflixuun bismillahi arrahmani arrahim sadaqa allah sadaqa allahu mawlana alazim wa balaga rasuluhu alkarim nahnu ala ma qala rabbuna wa xaaliquna wa raziquna wa mawlana min alshahidin allahumma rabbana taqabbal min منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كانت في تلاوته من سهي أو نسيان أو تحريف كلمة أو موضعها أو تغيير أو تحريف حرف أو تقديم أو تخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شد أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو صرعة أو زيغ اللسان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 الجنة والحسنات وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ومكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم العاقل يوم البعث واغتب رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت اقدامنا واحيا صراطي واسقينا جوار سيدنا محمد امين اللهم امين وثبت اقدامنا على الصراط وسينا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اللهم ارزقنا واياهم جوار سيدنا محمد عليه عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقنا وإياهم جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا وإياهم بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وأعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان زدنا من جودك وزدنا من فضلك الواسع وجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبهرة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آمين اللهم آمين آمين, آمين.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 اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بهداية القرآن ونجينا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضلية القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن بيا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلاء وبالدال دنوا وبالذاء ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ضياء وبالضاء الله طهارة وبالله طهارة وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قلوة وبالباكاف كربة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواو وصلا وبالواو وصلا وبالهاء هداية وبالهاء هداية وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم بلغ وثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام والسلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة إلى روح تفسير مدو مدوكي نجاي مدوكي نجاي وإلى روح عبدك وابن أمتك تفسير maadu madooki Njaay madooki Njaay allahuma ballig sawaaba maa qara'naahu wa nuura maa talawnaahu ilaa ruuxi abdika wa bani amatika imam tafsir ma adow ñaa allahuma agfir lahu warhamhu wa allahuma agfir lanaa wa liwaalidaynaa wa liman lahu haqqun alaynaa wa liman lahu haqqun alayhim wa lilmuslimiina walmuslimaati walmu'miniina walmu'minaat كافة الأحياء منهم والأموات وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأصدقائنا وأخينا خاصتنا أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة إلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم السلام عليكم yàlla yàlla faj sa xaajo moom muy faj xaajo moom bur yàlla ci mbàkke sunu maam maa dooki njaay amin ku baax ku yàlla baaxal la ñu ngi ñaan ci buur yàlla muy def képp ku fi indaale ji tiis wala jaaxle wala jàq wala feebar wala aaju bu mën a doon yàlla muy teggi njàqar yàlla na ko yàlla teggi ci barke sunu maam maa dooki njaay ba tey yàlla nañ ko teewee déwén xalifa bi mooy ñaan nee amin nee mbokk yu baax ngeen mbokk yu baax ngeen nee mi ngi gërëm nee na man mii mu may gërëm jaru ko woon nag wax dëgg yàlla <laughs> nee na jarbaatam laa waa ba nijaay yooyu yëpp mën naa ñàkk nag sama war ga sama yaay laa ko defal waaw nee daal mu ngi may ñaanal ñaanal ma yàlla rek macha allah ak ak njëpp ak le comité xale yi taxaw ci bés bi xalifa bi dafa am xale yoo xam ne ñun ñuy sori ñoom ñoo ñu wuutu xam nga leen bu baax ñoom Asma Dokeek Mouhamad Lamine ak Thiam Massamba ak ñoom Ousmane Ndiaye ak macha allah ay gaynde yoo xam ne ñoo ñu wuutu nee na foofu la jëm si alhamdulilah nee na Asma Asma Dokeek bi mbay ci boppam nee na wax na ko ni sama doomu bàjjan nga imaam Mouhamad Bachir mu ngi nii toog mbay nee na su ko neexee door ko rëkk ko. nee na xale bu baax la macha allah bés bii lu nekk jaral na ko ak xale yëpp rek xale yëpp rek nee na yàlla miy taxawu nit yàlla yàlla bokk taxawal xale yëpp amiin nee na sunu nijaay ajuma mbay mii ku baax la xam nañ ci dara nee na ñoo ànd yarondoo nee na ku yàlla baaxal la ñi ngi ñaan ci buur yàlla yal yàlla faj xaajo ak sunu xaajo barkeel njabootam ak sunu bos barkeem njoobootu boole julli bu fi teew ak ku fi teew te bëggoon fee teew nee na xalif neen kontaan ci moom comme ni mu kontaan ci ñëpp nee na Serigne Ndiaye Gonjalees sunu nijaay la moom rakkam la rakkam la moom moom itam ku baax la ndax lii mu def ni daanaka mënu ko ndax yitte ak eh, yaram nee na eh, dafa dëkk jóge ci ab dëkk dëgg ñaan gi rek xam ne ñaan gi moom moo ko waroon organiser taxawu ko nee na mu jaata bàyyi lépp ñëw fekkee ko loolu moo ko war ah njabootu gaynde gi baay Abibu Njaay Abibu Mbaay lii moo ko initié def na ci loo xam ne kenn def ko ci lu ci lu ci toq ci yiw moom la moo koy fekk fa mu tëdd insha allah xam naa ci lu bari parce que bu ñu waan Dakar sama loxo lay jàpp ñuy dem ci fu bari maag moom nee na Abibu Mbaay moom mi dafa yaroog moom moo tax mu xam ko nee xam na ko bu baax yàlla na ko yàlla xaare aljana jéggal ko ak suñuy waajur nee na danay def nee na ajjuma bu jot moom xalifa bi danay def lixlaas ñetti téeméer est-ce que ak juróom fukk ak juróom-ñaar 357 man mii ma sama ko wax wax dëgg yàlla ñu waxtaan ci lu yaatu lixlaas lépp la macha allah dan nee na fàtte fàtte papa Abibou Mbaye macha allah ak waajur yëpp nee daal mi kontaan ci ñëpp rek. kii doomam la waaw sama xarit la imaam uh, El Bachir moo ko fi teewal ci taxawaay yitte ak ñoom Pape Mbaye ak ñëpp rek ku lim dangay ngay juum wala nga fàtte nee na ku ci nekk cër ba nga joxoon sa baay moom nga jox xalifa bi imaam yi doon jàng alxuraan ji nag ñu ngi ñaan ci buur yàlla yàlla nañ ko teewe negeen ni déwén yàlla nañ ko teewe negeen ni déwén kenn bañ a manqué yàlla mën na ko yàlla dara tëwu ko ndax dara mënu koo të yàlla na yàlla fekkee lu ñu déwén ak wér yàlla bu kenn manqué imaam Alioune Sall nee na xaritam nga xam na ko nee na xamante ngeen am na kàddu yum la dénkoon nee na kàddu ya def nga ko te as la macha allah nee da koo xool rek xam ne kii ku baax la yal yàlla yokk xam-xam bi imaam Mansour Seck mi doon jàng léegi sama yaram dafa daw ba ma ba ma ba ma daanu ci moom man macha allah yàlla ko yàgg ñaan ñaan la képp ku xam loo xam ne soo ko ñaanee yàlla nangu wallahi ñaan la nga ñaan ko bésu ñaan rekk la voilà xalifa bi nee na maama dooki nee na moom mii sëtam la ndax moo jur baayam baayam tafsir Mouhamadou Ndiaye am nay jamono waaw waaw nee na mu tëdd guddi gént nee na mu ziyaara taxaw ci bunt bi dama daan dem ba léegi jam gi jàppandeetul léegi nag mu taxaw mu taxaw ànd ak benn xaritam mu ñaan ci bunt bi dem ba sedd ajjuma nee na ma daal ko dikkal ci ñaan gi mu ah, maasa mu daal di gis góor gi xam ne ñaa ngi dem na néew loo ko ñaana mu dem ay waajur yu baax lañu kon nag loolu moo doon kàddu xalifa bi bu ko defee ñaari baat ci sunu digganteek ñaar ñan